Euh, jërë ngeen jëfati mbokk internet yi euh, gannaaw bañ leen nuyoo ñu ngi amaat contentement ak mbégte bu baax a baax euh, di jàkkaarloo ak yéen fii ah ci seen site bii di jàpp TV ànd ci ak sama baat ah tey jii nag ñu ngi fi si géejuwaay seet si benn kilifa gu mag macha allah ñu naan ko Serigne Fallou yaakaar naa ne aussi ku ko xamul dégg ko te jamono ci ginnaaw jotoon nañ fee ñëw waxtaan ak moom waaye li ñu waxtaanoon ak moom nag wax nañ moom ci wàllum kaaraange waaye nag waxtaan bi tey dañ ko war a continuer. ci jamono ji nga xamante ne wax dëgg yàlla réew mi tar na lool réew mi bëri na ay xat-xat lool jafe-jafe réew mi tamit bëri na waaye gannaaw loolu dañ ko bàyyi mu nuyoo ba pare après ñu jóg moom ci waxtaan bi sëriñ bi ñu ngi lay siyaare. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatoo ñoo ngi leen dellee di leen fay ay nuyoo ba gën a sell ci daraje yàlla ak daraje Muhammad rasulullahi allahu taala alayhi wa salaam waaw góor gi macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax dañuy kontaanaat bu baax a baax dinaa yéen ñi nga xamante ci plateforme nii abonné leen ba seen cloche notification incha allah rabi lépp lu dugal rek euh, di ngeen ci jot di leen fàttali rek ñu ngi dalal euh, Serigne Fallou waaye Serigne Fallou dañoo bëgg waxtaan ak yow tey tuuti ci wàllum kaaraange ndaxte comme nu ma ko waxee léegi rek réew mi jaxasoo na gis nañu jeunesse bi amaana faatu yi bëri na ñu leen di fekk ba seen kër yi fois sax di leen di rey te dama jàpp ne loolu ñàkk kaaraange euh, da ciy waral tey jii Serigne Fallou loo ñu mën a andil ci loolu. waaw li ne ci mën a indil di leen sant di leen gërëm. di sant sun borom tabaaraka wa taala di sant Muhammad rasulullahi mi nga xam ne mi ci weeram wu sell bii ñu nekk nii di mawlid kaaraange rek dafa mun a ñàkk ci ndaw nee naa la kaaraange ndaw luy wëreelu te tëkkul naanul sangowul ñu sang ko yóbbu dong nga ca tepp ndax nit mënut a dox te amul kaaraange hmm. nit mënut a am amul kaaraange nit mënut a xam te amul karange ndax kaaraange mooy première li nga xam ne mooy première lépp di lépp di lépp ku ko amul rek amul dara ndax loo am lu ne loo am lu ne amoo kaaraanga loolu day dem lu wér laa la wax ndax li tax ma wax la ko mooy soo amee alal te amoo kaaraange bët dana ci dugg làmmiñ dana ci dugg seytaane dana ci dugg rab dana ci dugg ba kaaraange ba loole moo koy moo lay gàllankoor ba kaaraange ga moo taxoon moo waroon a gaa garanti loola bu loolu amul nekk loola day dem alal ja dem nga dem ñoom ñaar yëpp dañu bokk dem. parce que kon maanaam maanaam tey jii ñu bëri actuellement nii nii. ñu ngi euh, foraatu di liggéey di daan seen doole des fois dañuy am parce que dañuy gis benn jeune bu la ne man maa ngi liggéey maa ngi am mais li ma am xaw ma fan lay jaar góor gi loolu lu ko waral. li ko waral moo di ne doomu aadama am na ci ñoo xëy ni seen wërsëg du taa loxo bët dana ko def. Hmm. am na ñoo xëy ne amee moo baaxul. Hmm. am na ñoo xëy nii mbir na fan koy jaarale moo baaxul am na ñoo xëy ni demu danoo amul kaaraange kaaraange nag soo ko amul moo dina loo am lu nekk làmmiñ da cee dugg. loo am lu nekk bët dugg ca loo am lu nekk xalaat doomu aadama bu ñaaw dugg ca mu daal di yàqu loolu mooy ñàkk kaaraange. waaw mais mais lan jàpp ne lan jàpp ne jamono ji loolu loolu moo ko war a mën li nga mën a saafara mooy wut kaaraange mooy ndax kat euh, sun borom dafa wax na maa indikum yéen fàddu wa maa indallaahi baaxi li nekk ci man du jeex li nekk ci yéen day jeex waaye itam moo waxate xul on sibre bi naasi maaliki naasi loolu itam kenn ku nekk dégg na ko hmm. kenn ku ne xam ne na faatiha xam ne ne li tax mu jóg moo dina jullit yee tax mu jóg ak sellal moo tax mu jóg ak kaaraange faate soo ko xoolee ba ca biir dana la faatee bu ànd ak wenn yàkkaadu lu mun ta saafara amul mu delluwaat na faatee boo xëyee nii dafa ànd ak bu nekk nga bind ko def ayatu kursi soxla su mën a fekk ak aajo bu mën a fekk mën na koo daaneel mu dexaat na ay mu de mu na la faatiya juróom-ñaari faatiya ak juróom-ñaari fàlla xeeg naasi day dàq musiba ak balaa mu delloot na wax na la faatiya da ubbeekukaay la bu wér la loo xam ne ci téere la tegu kon Faatiha dafa bari njariñ waaye nit ki day wuti ay muslaay waaw Faatiha dafa bari njëriñ kon Faatiha am na benn mbóot bi nga xamante ne yaakaar naa ne mu nga mu nga ca biir waaye tey jii nii euh, est-ce que yow tey jii nii yow bokk nga ci nga xamante ne euh, euh, da ngay defal maanam wàllum kaaraange da dem ci liggéey quoi. waaw kaaraange mu boo ko soxlaa faat li fi nekk mënuma la ko wax ci ci télé ndax su ma la ko waxee da nga naan lii non loolu mënu nekk man maa ngi feeg benn kaaraange boo xëy nii rotol lan koy wax. lan rotol. rotol rotol rotol. tey loolu da maanaam doomu aadama bépp doomu aadama boo xëy nii. def nga ko tey sabab bii. Mhm. benn yoon kese nga koy def par six mois lay lay lay teg. Mhm. tax ngay wut soo ko ci sottee boole ko suul ko ca mboolam lu nekkoon sa kaw dana wàcc. ku fekkewut pax moom wut laa suul te kenn mu laatee feeñ ñaareel ba ca topp. moo di ne am nañ kaaraange boo xam ne bu bér bu wéer bu leer nañ mhm. soo ko xasee sangoo mboolam lu nekk sa biir ak sa biti yëpp day génn ci biti parce te dara mun tëdd kat sa kaw mhm. mu ñoomaat fi beneen kaaraange boo xëyee nii lépp loo xëyee nii danoon woon sa kaw munta dal sa kaw mhm. dem del si laat lay doon képp ku la def ku laal moom day day dem teer moom maanaam day mel ni teg si daal waaw ah, bal teg si daal la waaye la muy la kay toj mooy def loolu daal la mbaj doo euh, def kenn maanaam la koy la koy toj mooy maanaam yow waroo def kenn lan yow doo def kenn dara man ngaa kaaraange la boo xëy nii nii maanaam kenn du la def waaye doo def kenn dara waaye dara kooku mooy kaaraange kaaraange soo bëggee nga xam moo di na lan moo di ne nit ku ne war naa xam ne yaasin li ci nekk dafa bari njariñ ndax yaasin boo xëy ni da ko bind boole kooku we in yakaadu ba tey aye boo bind def ci we in yakaadu aye boo def ci we in yakaadu ba aye ba mat nga juróom-ñaar fukki lañ set juróom-ñaar fukki pusa boole leen ngeen sangu leen juróom-ñaari fan lu nekkoon ci yow dañ na kooku mooy yaasin yaasin dafa sell nga boole que ne mooy boo ko manee buddi bu nekk koy saxal ku nekk kenn mënul laa kar mm. kenn mënut a dee yaa ngi nii lan lay wax kenn mënul musiba bu dikk bu nekk mën na laa gaarante soo ba ngoon kooku mooy yaasin yaasin boo ko boo ko jàngee ñeen fukki yoon soxla su mu mu mu fekk dana ko tëmbal da koy daaneel allahu akbar soxla su mu fekk ak soxla su lu mu rëy rëy soo julee ñaari rakka nga nga jàng yaasin ñeen fukki yaasin ak benn mu sell bu wér nga ñaan sa aajo aajo boobu dana faju ci kàttan suñu borom est-ce que wan yaasin dafa bari njariñ yaasin boo ko bëggee xam boo bëggee mm-hmm. soo bëggee sa wërsëg di yaatu del jàng saa waxaat mm-hmm. que kooku loolu itam ñaar ñooñu leen dëpp la ñu bari danoo wax ne wërsëg la ak njariñ ak jañ ak ñoddi danoo danoo ànd waaw mm-hmm. ah, waaw kon yaasin bari na njariñ moom it léegi dinaa ñëw ci yaasin boobu noonu yaasin bari na njariñ ah. ci maanaam ci boo koy léegi moo bëgg a laajte su fekkee ne amaana yow mënoo jàngoo comme sama genre gi par exemple léegi nan ngay def ci lu mel noonu dañ la ko bindal wala lu xew waaye Yacine soo bëggee boo fekkente ne mënoo jàng da alal ju lew domm nga wut ay taalibe yoo xam ne la ñuy jàng mu leer la ñu jàngale ko ñeen fukkil Yacine ak benn sëkkër nga wut ndabi laax nga laaxa leen ko ñu lekk ba rek boo ndox moomee da ngay gas tu gas ci biir kër gi soo ko manee soo ko mënul nañ nga tuur ko ci biir kër gi kër ga jàmm rek a fa am ak xew te kaaraange leen kaaraange bu wér bu amul lam-laame. allahu akbar macha allah kaaraange bu wër la bu amul lam-laame euh, bi leen di fàttali ñu ngi woon fii nii ci géejuwaay dalaloon ki nga xamante ne mooy Serigne Fallou macha allah te di ngeen yéen ñëpp li nga xamante ne moom la ñu baaxee kon nañ ci baabaat xel bu baax a baax a baax a baax mais mais Serigne ba tey damay def si wàllum kaaraange parce que rey bi bëri na trop trop ci réew mi nangu alal jàmbur bëri na trop trop ci réew mi loolu jàppoo ne ñàkk kaaraange moo koy def wala. ñàkk kaaraange am na ci cet am na ci. Oh. gis nga cat bu la duggee fu nekk lay dugal cat su la duggee fu nekk la lay dugal loo am man na ko yàq bu la yàqalee sa alal yàq yàq sa jëmm yàq soo fan cat yooyu yëpp da ko bët day yàq alal day yàq jëmm yooyu yëpp cat da koy def te loolu li ko indi mooy ñàkk kaaraange donc ko indi ñàkk kaaraange rek am amul kaaraange wax naa la mënul am dara nit bu amul parce que loo am da nga koy fajoo mm-hmm. loo am lu mu bari bari man koo dem ba fajoo yaat kon kaaraange dafa am solo ci nit bo gisé accident yu bari bari képp ko xéni man nga dugg ci auto bo dugg ci auto lu mu gatt gàtt war nga kabar ñetti kabar ñetti fàllaxi ñetti nasi mhm. ñetti ayatu kursi soko mané Dangga da nga dem ci jam ñew ci jam ak lu mu gatt nit war nako di man di sal hmm. parce que lool accident wax ni ne kenn du ko lambo di dem di am accident ñu bari bari na ñu ci wax bok borom téere ci wax ci lima xam man hmm. waaw ko kaaraange hmm. nit ki tam bu bëggé kaaraange tam mané def chaque jour bala mu tëdd nay lamboo nay lamboo yaasin yaasin yaasin chaque jour mu nekk wa bu fekkente ne dafa bëggu leer sunu réew mi ayatina boo ko xoolee mi ngi ci fasilat boo kooku itam boo bëggee ubbeeku juróom-ñeenti yoon la nga koy nga koy jàng par guddi mm. sa xel de ubbeeku leer naññi tëdd ak musulaay la moom it mm. te nga aar sa bopp aaraale waa kër gi mm-hmm. kon xam-xam dafa nekk loo xëy ni ay sew-sew la bu ñu demee ci xam-xam bu ñuul nekk dañ ne yaxu tan buñ bët ànd ak përëm da nga am bayre da nga am da nga mucc ku koy tak del ci serigne bi yaxu tan yaxu tan uh-huh. am prex yere uh-huh. mais day am day am uh, përëm uh-huh. përëm lay andal përëm lañ koy solé përëm lañ koy solé soko boko sango ba pare nga nga tak ko da nga am bayre da nga mucc est ce yalla mu ko xam xam ci xam xam bu ñu lay lay do ñu del yaat wax ne juroom ñaari dal yo xani ñu bokku ñu nday nday jor chamoon la nga boole ko nga gas ko ci sa kër nga nga nga def faatee ci digg bi mm. def fàllaxe ci côté bi def naas ci côté bi kër ga fu mu jaar day mucc ku fa nekk mucc mm. ku fa nekk mucc kër ga ñaari daal yooyu boo ko defee lii ma lay wax nii soo ko defee ci diggante bi mm. kër ku fa nekk ci kàttanu su borom dana la muccal kon dafa am loo xëye nii faw nit ki bala ma ko mën a def dakay day aaro ba pare -hmm. soo ba bëggee mbooloo bu fekkee nag mbooloo moo la dikkal bu ànd ak mucc -hmm. da ngay dem nga wuti tàggum segal -hmm. tàggum segal aw ak deru ñey tagum segal mi mom ngay mouré dara ñay tagum tagum segal tagum segal parce que day xëc mbolo mm. mais bu amul karanga mbolo day and karang. karanga bo wuté tagum selam segal nga fexé ba am deru ñay nga bolo ko ci mm. nga fexé nga sul ko fa nga nek mm. tejj ka fatiha ñetti fatiha mbolo dina ñew da nga am xewul da nga mucc est ce li man mal ko xam xam bu ñu ma sha Allah ma sha Allah ko mo len ko baxé ki xamantene moy serigne fallu nek fi ci way mbar serigne gis ngeen li nga xamante ne wax dëgg yàlla jot na leen ko laaya biir te yàlla rek a tax ci jamono ji nga xamante ne réew mi dafa xaw a doy waar macha allah kaaraange yi tamit pour nga ñu am ko jafe na waaye mais sëriñ bi aussi dinaa ñëwaat euh, ci wàllum cat ñu ngi ciy wax parce que tey jii da nga xoolal tey jii suñu genre yi tiktokeur yi bëri nañ ci réew mi ku yeew rek taal téléphone moom tiimale ko boppam. waaw cat dafay am yoo xëy ni ci xam-xam bu ñu lay dox. Hmm. am am boo xëy ni ci alquran lay soo wutee juróom-ñaari socc yoo xam ni benn bokk ci sa morom boo xam ni da koo far nga wut làmmiñu bëy mm-hmm. bëy mm-hmm. bëy nag laa la waxuma xar bëy laa wax mm-hmm. ñu bool nga takk falay gu ñuul falay gu weex falay gu xonq ñu jàng juróom-ñaari ayati kursi yu nga sangoo ko ñetti fan fu mu fekk lu nekk ci yow day rot xam-xam xam-xam bu ñu lay dox ca xam-xam bu ñu lay dox yooyu yëpp ñaari xam-xam bu ñu mais dafa ànd ak alxuraan soo paree ba pare da ngay fekk sele bi yoon. sele bi yoon sele bi yoon laa la wax. Mm-hmm. mooy loolu nga sëngoo woon mooy sotti yooyee. Mm-hmm. fa kay gas fa nga koy def. Mm-hmm. mboolam lu jóge ci mboolam lépp luy dox ci suuf mucc nga ci moom. ndax ku lépp luy dox te lu mu fekkoon ci yow dana génn. kooku day dindi cat day gindi kat day indi arang day day aar nit lu baax la lu wér la nekk. lu wér la lu sew la mais lu wér la. waaw benn ñi bind ci fàllaxi benn ñi bind ci naasi. dikk boo paree bu dëbb ko ba mokk moom it. ko laaj ñaar lu ëpp bu dee fukki nit ak juróom-ñeent yi dañ la jox. même bu leen neexul. kon dafa am yoo xëyee ni kenn du ci sukkandiku man moom yooyu moom xam am na yu ma ci xam ab téere laa ci am laa wax. Ah? boo xam ne lépp ci xam-xam bu ñu lay doon. parce que téere complète boo xam ne lépp ci xam-xam bu ñu keese keese keese lay doon. boole ko doon wax fii bu soo ba ngoon du jeex waaye man daal li ma gëm mu man man alxuraan laa gëm. mais loolu loolu nga baal ma mais doo ci liggéey. déedéet xam xanaa mooy li nga xam comme li ma waxoon ci dama la waxoon na la juróom-ñaari sotti. ñu boole ko làmmiñ bëy foofu foofu la génn di. loolu li ma lay wax noonu yi. ah ci mooy fi nga coppatee. foofu lañ ko coppatee. da ngay xam-xam bu ñu bi ñu bindee. danga nga cee la nga xam ne moo cay jëriñ. lu bokkul ak deret. lu bokkul ak loo xay ay sacrifice. nga jël yooyee jox ko jaam ñi waaye bul jël yi nga xam ne safaan am na coo xay ni boo ko defoon tey jii sa jëkkër lay topp comme ku yor ab ab ab ab ab am boobu boobu. est-ce que bu tax bu tax xam-xam bu ñu lay Euh, sa jëkkër lay topp loo loo wax lay wax loo waxul du ko waxu ko. parce que loolu it dafa am dafa am bari na ko xëy kenn ku ne war ngaa dégg ni teg saak. Uh-huh. am na ñoo xëy ni laa jëpp sa loxo bii. Hmm. fexe ba nga nuyoog ñoom bu hmm. lay laaj li ci toile jox leen. Uh-huh. te doo hmm. dem rek ngay gindee gindeew. kon loolu yëpp ci xam-xam ñu lay dox doxul ci xam doxul ci xam-xam alxuraan xam-xam bu am na saafara est-ce que am na anti anti boo xamante maanaam lu la mën a défendre. ci ma boo saa rumel noonu. nga waaw kaaraange soo ko amee. Ah. kii bëgg a luwal du ñëw ci yow. Ah. gis nga kaaraange soo ko amee. Mm. problème bu amee fee da nga naan problème la mu demee. ok moo tax kaaraange dafa baax. kaaraange soo ko amee luy xew lu nekk yow ah, mbir sàngam nu amee nu demee ngay la di wax mbirum keneen lay doon. Mm. du sa nekk sa mbir. kaaraange soo ko amee kuy def ay tolof tolof dalay mu dikk ci yow xelam ci leneen lay nekk. est que. loolu mooy kaaraange. mais boo mu aaree boo aaruwul lu jëkk de ci yow la day jublu si ci yow. Mhm. lu koy défendre amoo leen lu ko défendre. Mhm. wa ndax fi mu toll nii Texas boo ko xoolee du di day passé téeméeri téeméeri place. Mhm. wala téeméeri mel juróom-benn téeméeri place. dikk ba ci yow. lu tax mu def la ko yaa ci gën a néew doole. du dee sax wala dee. dëgg la koo gis ñu ñu jël alalam. Uh-huh. wala ñu ñu ñu tafu ko. danga yaakaar ne kii ñiy tafu am na ci ñoo xëy ni tafuwuñ ci à zéro dama wax takk galaaj ba pare doo ko tafu. parce que man de sonn naa li ñu may tafu bëri na. déggoo de am na ñoo xëy nii fu nu duggee fu nu di dugg ña fa nekk ñëpp kenn du wax loolu ñooñu ñëpp ko gis ci ci lu ñu lay doon. dañuy jël dañ fay jël dañuy jël na fees ñu naan annulé nañu koon fii xam-xam bu ñu la koy mm. waaye ñi ragal yàlla duñ ko def. Mm. ñi nga xam ne xam ne ne traay bàmmeel am na duñ ko def. Mm-hmm. duñ duñ ko def waaye ki nga xam ne moom danaan mu amee comme noonu la waaye li ëpp bari xam-xam bu ñu ku ko jëfandikoo lu sa mbir jàpp na sa fan day gàttal. Ah, bu nekkul sa mbir. waaw jàpp na moom sa fan day gàttal. allahu na ko jàpp hmm. wala da am ay torof torof yoo xëy ni lu mel na ay gaanaak gaaw a deegoo xëy kenn xamul et cetera. deebu deebu deebu yoo xëy ni tegu kenn du ko mën a maîtriser. Hmm. xam-xam bu ñu dong xëy nga am li nga bëgg léegi dox nu la neex waaye dara. dara yow itam la la yóbbu nii la noonu lay demee noonu lay demee. ndax day dema dem mu jaag moom mu tegal la ay sart yoo xëyee nii sabakan lay laaj. Ah, mu jaag ay sart la lay tegal moom it yow yaa ngi am li nga bëgg mais day dem jamono day dikk mu tegal ay sart. est-ce que kon dañuy xam-xam bu ñu parce que yi mm-hmm. ne da nga ciy jëfandikoo ni nga ko bëggee. Mm-hmm. dañuy yuréet léegi nga am li nga bëgg léegi waaye lu nekk mën naa nekk. lu nekk ma naa nekk. lu ne mën na nekk ci. lu nekk mën na caa nekk lu nekk mën na caa nekk. lu nekk mën na caa nekk kon xam-xam dafa nekk loo xëy ni das koy segg man daal xam-xam bu may jër danaa jël la caa am maanaam. Mm. la nga xam ne lu baax la. Mm. chaque instant ma ne leen man ku dikk ci man naan ma defar ma safaan jur nga yaakale bu ma yaakale mm. bu dee lu baax mën naa caa def moo pare nag suñu borom moo yor man yoruma de. yoruma xaw ma mënuma. suñu borom moo yor bu matee bu antoo nga xam ne suñu borom bu antoo dàq nga xam ne suñu borom wallaahi man la ma jàng laa la mën a defal mm-hmm. man foofu laay sukkandiku ci waaw ndeysaan man laa macha allah am na solo trop trop trop jàmbi jàmbi leen rek la xam mooy ñaan yàlla moom mooy dogal yàlla mooy maye donc du comme ni ko Serigne Fallou waxee am na solo trop trop trop trop waaye Serigne Fallou dañu bëgg a ñëw aussi tamit ci ci wàllum rab ndax tey jii jëkk bi bëri na tey jii ñu bëri am nañ tey ñu ngi yàqule trabu leen rab moo koy yàq te ñu léegi ñu bëggoon leerlu ci loolu suñu fàllu waa rab dafa nekk mbir mu dansé ngoogu hmm. mu dansé ku koy faj hmm. képp ku koy faj nag jàppal na lu dansé ngay faj hmm, rab na rab lu dansé bari na ku koy yër te doo ko def nga gis na lii day faj rab te doo ko ndax xam tax rab da ngay da kële faj kële faj kële ba mu na ne rab yu rab yi ko nit ñi na naan groupe ñoom it dañoo am groupe spécial ay kilifa yoo xëyee ni yow yaa ngi wekk li ni yaa ngi yàq li ni liggéey mm-hmm. ñoom it dañuy ñëw ci yow parce que loolu mooy problème rab ak oh. seytaane ku koy faj ku ne jàppal na yow sa bopp say doom say jarbaat ba say ñeneen jàppale muccagul na mucc ñi ndax bu yow bu la jéemalee mënuñu daañu dem sa jarbaat daañu dem sa sa sa wala sa waaw maa la li lu may wér laa la waxee gis naa ko xëyee nii ben rab kep la fetalon waye doomi yi ci ëpp danoo pralish allahu akbar. rabba ban ka wax lu lan la tek lan ni wax lii ñoom def ne mënul mën mënul mëna dara waye dina la topp ba sey jarbat say sey te lu tek beug la waxuma lol dama ko deg kon yoy dafa ko war de moytu saytaane non la deme saytaane te même quand bo de yah ay liggéey yëm non la fay doxee. Mm. moom it de jug ci yow bu jógee ci yow mënoo ko lu jës ci yow dana ko def. Mm. rab moom ñëpp loo xëy ni dañ koy foyee ak seytaane parce moom bari na ñoo xëy nii dañ ko sëgg yër ko gis ko waaye duñ duñ ci jëfandikoo. duñ ci jëfandikoo déedéet duñ ci jëfandikoo. kon kon kon kon tey jii nii yow. rab man moom ci looy faj. déedéet man kay sama mbir moom ñaari pees yi laana la moom du ma ci xalaat. du ma ci xalaat yër naa ko ba gis ko waaye conséquence ya ba ca ja ba nekk. Ah. man jarul lu mu ko mat. man conséquences yi ca nekk boo ko defee. Mhm. man lu ma ko man. Mhm. man man fàllu laa ko man de. nekkul ne xaw ma ko de. Mhm. gis naa comme ñun bindee yeneen xam-xam yi noonu leen ko bindee. teg waaye nag kenn ku nekk la dal sam xel ngay def. maanaam daal yaa volontaire woo daal. man du ma volontaire woo ci loolu. ok bu ma ci volonté ma ci def benn volonté. man damaa jëfandikoo nag. loo man dama cee aaru man. man sama bopp. waaye nag amaa mu nit ki mu dal nit ki ma jël engagement boobu ma ko ndax wax naa la la ci nekk. la ca nekk. waaw mais mais loolu tamit la ca nekk li la war a mën a yàqal yow mu dem bay faj amoo leneen loo xamante ne amaana boo ko defee dina la musal pour pour ci ci yàqal bi. waaw xam nga wax naa la dama ne la yow ci sa bopp mën ngaa aaru. mais say doom nag say sët nag. est-ce que doo xalaat. lu ma ta bàyyi xel la kay. waaw léegi nag ñooñu am na ci ñoo xayee nii du nu takk du nu naan comme seen i tey. gëmuñu dara foofa la jëm. yow da nga fi di jógee koo gis muy faj rab ak koo ko xëy ni boo ko toppatoo rek boo demee mat na am na cinquante ans wala cinquante et quelque wala soixante ans mm-hmm. waaye léegi nit ki nag lan la bëgg a dundaat lan nga yaakaar moom lay dundaat say bu nga tegal tegal ko quarante wala trente cinq mm-hmm. mu jóge fi parce que kat jamono léegi lool la mm-hmm. loolu la waa léegi ñi fi des nag kon yow kon yow yaa yaa jël lii def ko lii. est-ce tax ma ne la engagement boobu man bu ma ko jël man maa aaru sama bopp. Mhm. waaye du ma laal man moom ko laal. ndeysaan nee na moom engagement boobu noonu du ko jël xam na mbir mi lan la yër na ko ba xam lu koy def mais moom du jël engagement boobu parce que mu ngi ciy sóoraale ay sitaati sitaati sitaati sitam waaye tamit sëñ Fallou ba tey dinaa ñëw ci li nga xamante ne jamono ji lëmb na bëri na ci muy tànk ak ndigg. waa tànk ndigg ñaare lenn na ko waral. Mhm. tànk am na ñoo xëy ni feebar la boo xay ni bu nekk ci ñoom. Mhm. boo xëy ni gis nga lu naqaree lijjanti la. xam nga tànk bi nga xane hmm. dafay métti hmm. te du ndoxu siti hmm. du yeneen feebar yi ak yeneen feebar yi bu dee ndoxu sitee xam nga yow yaa gën a xam na ay mot fajug bu fekkee dëgg rek la ñuy wax xam nga ndoxu fit loolu da da ci am ndigg loolu da ci am yooyu yëpp feebar yooyu bu fekkente ne nit ki nag dafa jekk nga xam ne bopp ndiggam dafa daanu wala et yu mel noonu. Mm. wala muy metti ci méttitu normal. Mm. kooku mënees na koo mocc ba méttit wa taqali ko mocc ba mu sedd ma naa ne lu mën a oh. nekk la. man mii di wax yow mii. boo ma joxoon ndox léegi ma bàccal la nga gis léegi li ngay li ma lay bàccal. jaay bu waxuma ay ngay bët nga ja nga jàkkaarloog man. boo fattoo dama lay bàcceel ba nga gisal sa bopp nag xam ne lii fatt fattu sa bët la oh. mu leer la naññ xam nga loolu amul demal ma ñëw la hmm. ay demal ma ñëw amu amu fi bu dee bu dee luy metti nii hmm. luy metti hmm. manis la koo moccal ba mu ba nga xam ne yow mii xam nga ne méttit ba dem na waaye dafa am yoo xëy ni am na méttit yoo xëy ni bu fekkente ne saytaana cee rax wala wala rab exemple man am naa fi benn secret boo xam ne boo ko moccalee bu fekkee ne doo ci rab day daaw day daaw di ndax bu dafa am rax waye bu nekul rax day sedd oh. day sedd day sedd ba nga xamne li ki li mom sedd na xamal na bop moom ne méttitu bopp ba deñ na métti métti liko don liko don def ci tankam deñ na lolu moy moy mocc waaye bu fekkente dana mbir mi dafa am ay rax lu ay ndox ci teeg extra yi nga xamne yax yi ku màggat ak lo xamne extra yu mel non ay mocc mun ko xam lu ko meuna dindi moy mm-hmm. dem faju ji Hmm. ndax am na feebar yoo xam ne feebaru docteur la docteur la docteur bu feebaru sëriñ bi hmm. jur sax sonn faaw nga dem wuti garab kon man man loolu mbir moom man foofu laa ci toll hmm. mais mais mel ne ay doxusiti ay doxusiti ay ay ay ko faj ay doxusiti ay hémorroïdes du ma ko faj doxusiti man li ma li may faj li may li ma la mën a saafaraal mooy luy metti bopp yu metti bët yu fattu ba tànk yu metti maanaam yi nga xam ne day metti mën naa la faj ndax ndoxu siti kon la waay mën a wax ne de mhm. mën nañ koo faj tey suba ginnaaw suba munu ne ndoxu siti traitement bu yàgg yàgg yàgg lay laaj mhm. émeri traitement bu yàgg yàgg lay laaj mhm. tey du ma dikk na la nan am naa ci a gis naa ko bu baax nit gis naa ko ndoxu siti boobu nga wax noon gis naa garab yi ñu ci composé yi ñu ci war a àndal yi mu war a def yëpp gis naa ko waaye nit ki mu a dikk ci yow nga ne ko mën naa kaa faj pare jox ko tey suba ginaa soo mu ñëw ginnaaw su mu continuer yow te man loolu dong nekkul suma ambition. Mm. xam nga mënu ma mënu ma koo jël kon. Ah, waaw moo ko mën a jël ndax man loolu dong nekkul suma ambition. te mënu maa mënu maa mënu maa jël sa xaalis ba pare du ma du ma li ma ma ko def. Mm. nekkul benn fan nekkul ñaari fan nekkul ñetti fan. traitement bu gudd la. Mm. pour nga faj ko ñaari yi façon yi ma lay wax muy éméru muy ndoxum siti ku ne man naa kaa faj am jenn bitéel nga naan dem. boo lëgee mu jeex déedéet. déedéet traitement bu gudd la. Euh, maam maanaam traitement bu gudd la moom tamit comme ni ko waxee nekk la loo xamante ne bokku ci li nga xamante ne moom ngay euh, faj donc loolu am na solo trop trop trop waaye euh, sëriñ Fallou tamit wax dëgg yàlla xam naa ne temps bi xoj nañu hmm. sa kàddu gu mujj lan la ak lan nga xamante ne amaana boor nga ñu waxtaan ci te jotuñ cee wax waaw li nga xam ne warañ cee waroon a wax te waxuñu ci mooy nit ku ne hmm. fa mu toog hmm. na fexe ba nekk fa biddiw fa mu toog mu fexe ba nekk fa biddiw biddiw doomaa dugg tudd ca nit ñi da la tuddaal obligatoirement su ko neexee ak su ko naqaree. est que. ñaaree ba ci nit ki fu mu nekk fu ne. Hmm. doomu aadama yi war nañu ko indi wërsëgam. ci bu ko ñu bañ ko ak ñu bañ koo bañ a hmm. loolu itam loolu itam. Hmm. nit doomu aadama da koo war a di làmboo. nit ku nekk fu mu nekk fu nekk war naa fexe ba kenn du ko mën a buddi. des ko fay bàyyi. Oh. yooyu yëpp ñu war a waxtaan lu gudd gudd gudd gudd la. Hmm. nit ki fu mu nekk fu nekk war naa war a fexe ba doomu aadama yi seen xol dugg ci ñoom. maanaam mu saf sapp. mu saf sapp ci doomu aadama hmm. nga xam ne kenn du ko laam-laamee. Hmm. dooma loolu yi lu lu ñuy liggéey yooyu yëpp yoo xam ne ñun am na yoo xam ne wóor la dañ ci am ay profil leer naññ la. maanaam maanaam yi liggéey yi dañ ko faral def quoi. waaw yooyu yëpp mën naa la ko mën naa la ko defee moom. ah macha allah kon sa numéro numéro bi mooy 70. 886. 10 06. 886 10 06. 70 la nekk. Mmh. Mmh. wala 76. 554. 30 39. 76 554 30 39. ñoo ngi leen di sant. Mmh. di leen gërëm. di gërëm lu ci njuumte gu ci am rek ñu am ne. doomu aadama moo matul. ci sunu borom la ñoo ngi leen ko ci rek lu dul. makaarimal axlaaq maanaam jukko bu rafet ak sellal ak jub ak jubale kese leen ci jublu lépp lu baax lu nekk su mborom yàlla neen taseeg moom